yaraw ci mbooleem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi. jotaat nañ ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd ko wér. jaar ci sëriñ Abo Mohamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla na ko sunu borom yàggal doole ak wéram. ñëw nag ci ëttum ndigal di sëriñ Cheikh Anta Mbacke moom sëriñ Modou Rokhaya Mbacke. ndigal li mooy lan mooy bis bii nga xamante ne bii moom la ñuy waajalaat te sunu jàmbaar ja di sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké initié woon ko ci atum 1983 wax ne bëgg na at mu jotati bu ñu duggee ci njalbeenu at ma ñu dajale addiyee dem jox ko ki fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul addiye jooju nag moo dëgg malaat war a doon le 8 janvier incha allahu rabbi dëppoo ak bis bi ñuy fàttaliku di ci ñaanal Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké moo tax ñu toog fii nag ci biir kër gi jàkkaarloo ak waa fédération bi nga xam ne mooy fédération Xidmatul Xadim lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër Serigne Cheikh Anta Serigne Mbacké Madina mi ngi nii toog yore kaddu Serigne bi danañ ko jox kaddu gi su noppee Serigne Mouhamadou Mamoun Diagne mi nga xam ne moo jiite fédération bi dana yëkkati ay kaddoom su noppee nag Serigne Cheikh Silla Ndindi dana yëkkati ay kaddu moom mi secretaire général fédération bi su noppee soxna Ndey Diop dana wax ci turu jigéen ñi di sëti maam Cheikh Anta yi di sëti Serigne Modou Mamoun yi ngir ñu woote bis boobu waaye fàttaliwaat nit ñi bisub Serigne Modou Rokhaya jàmbaar ja ñu xam nag ne sëriñ bi addee ji ñor na ko lool waaye bis bi ñor na ko lool kon ñu bàyyee kàddu gi ak Serigne Mbacke Madina miy wax ci turu Serigne bi. mbokki taalibe yi taalibe Serigne Touba yi ak taalibe Darou Salaam yëpp euh, ñi ngi wax ci kaddu Serigne Cheikh Anta mu ne mi ngi yëgle bisub addee Darou Salaam ji ak bis bi nga xam ne euh, ci lay ñaanal sëriñ Modou Rokhaya nee na mi ngi ciy woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp rawatina euh, ki nga xam ne mooy kilifa murid yëpp muy as cheikh Mouhamadul Mountakha ak mboolem buntu ko sëriñ Tuubaa yi ko cheikh Mouhamadul Moustapha cheikh Mouhamadul Fadal ak sëriñ Baara sëriñ Basiiru ba ci ak cheikh Mouhamadul Mourtada euh, sëñ sëñ Soyibu sëñ sëñ Abdou Khadir ak sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Abdou Borom Dër bi ak sëñ Saliou. ak mbooleem buntu kër sëriñ Tuubaa yëpp nee na mi ngi leen ciy woo nee na mi ngi woo bokki sëriñ yi mu bokkal Mamor Anta Sali Cheikh Massamba waa kër waa borom Daaru Moxti ak waa kër Cheikh Massamba ak mboolem ñi mu bokkal kër sa kër sëriñ kër moom amoon sa rawatina nag kër sëriñ Afia ñi nga xam ne ñooy ay bokki boppam ñoom ñëpp mi ngi leen ciy woo nee na tamit mi ngi woo mbaa ak bokk yi mu bokkal yëpp mi ngi leen ciy woo askanu Maharab yëpp mi ngi leen ciy woo nee na tamit seex yi aju ci kër sëriñ Tuubaa Euh, muy Baye faal yeeg kër Cheikh saa Diène mboolem kër Cheikh si ñoom ñëpp mi ngi leen ci woo di woo it buntu kër sëñ gaawaan yi di ko dara ci euh, waa kër sëñ sëñ Alaaji ak kër sëñ Ndar ak kër sëñ Ibra Asu ba ca kër sëñ ak kër sëñ Moussa ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi nee na bëgg na ngeen euh, ànd kook moom ñu ngi ñaan suñu borom yóbbuñ ci jàmm ci barkeb Sëriñ Tuubaa daaray Daaru Salaam ji ak mboolem daara yi ko wër di ko dale mboolem biir Tuubaa gépp ak li ko wër njaareem ak li ko wër ngaay meex ak li ko wër mboolem fu daara nekk ci biir addina bi nu ngi lay ñaan nga jàpp leen ci njàngal alxuraan mi ñuy fas yéene def di ko fàttaliku Seex Moodu Roxaya Mbàkke lim boo ci jàng nga fexe ba yónnee ko sëñ Mbàkke màddina mi ak Cheikh Sylla diwaan wala alaaj sëriñ Wàdd wala sëñ Galas la su ko defee ñu xam lim ba nan la toll. mboolem ñi nga xam ne tey ñoom lañu bokkal liggéey bi fii ba kawlax fii ba Njaareem fii ba Ndar. Euh, Thiès Mbour fu daayira nekk te bokk ci fédération bi ñoo ngi lay woo ci turu kàddu ci ndigalu sëriñ bi ñu xam ne bis boobu ñuy jublu muy le 8 janvier ñun dañoo fasoo jël aw xeer daan daan daan ci ñaari ñaari ñaari picc ndax dañuy war a joxe addiye yi naam waaye dañuy fàttaliku nag suñ jàmbaar ja nga xam ne tey lu jiin njaag te mooy jaag sëriñ Modou Rokhaya addiye yooyu moo ko moo ko moo ko yeesalaatoon ba yàlla dogal mu teg ko ci yoon ba mu agsi fii mu agsi tey jii. kàddu gi nag ñu koy jël ci turu soxna Ami Mbàkke moom sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ne dafa waroon a teewee jotaay bi te am ngànt ñun ci turam la wax mm, di wax ci turu soxna jabaara mi nga xam ne moo coordonné moo war njaboot sëñ Modou gu jigéen gépp ndax buñ ma teewit ñun ñoo jël seen kàddu tey biñ mënta ñëwit ñun ñoo jël seen kàddu di soññi sunu mbokk soxna yi ci biir kër gi yëpp mu ñi ma bokkal daara ji sama rakki bopp yi su ma jógee ci ñooñu nag di soññi mbokki taalu yi muy soxna yi ñu ngi soññi ñépp bàyyiwuñu kenn nañ ko daan soññee rek nga xamal ne daal sëriñ bi daal lii moom mooy bëgg-bëggam addiye ji ak màggalu sëñ Modou bëgg na addiye ji raw nam meloon daaw bëgg na màggal gi itam raw nam meloon daaw te damay faral di wax ne lépp lu ñuy woote soxna yi jàmbaar lañ ciy doon duñ ci des ginnaaw kon nag soxna yi maa ngi leen di soññ bu leen des ginnaaw ci addi yi waaye bu leen des ginnaaw ci waañ wi waaye bu leen des ginnaaw ci màggal gi. jërëjëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu di wooteeb soññee addiyee daaru salaam gi nga xam ne le 8 janvier lay doon incha allahu rabbi waaye màggalu Serigne Modou Rokhaya gi nga xam ne ci turu Serigne Modou Rokhaya Dioum mboolem turandooy Serigne Modou yi ñu ngi leen di soññ di leen xam ne dañ cee amub taxawaay bu rëy ñoom ñëpp nag sëñ Modou ngi leen di soññ ci liggéey boobu nga xam ne seen liggéeyu bopp la kon bis baa ngi noonu màggalug bëccëg lay doon Serigne Cheikh Anta nee na dañuy xëye jàng alxuraan xëye jàng ay xasida ak salaatu ala nabi def ay bernde waaye bu ñu demee ba julli timis nag ci la ñu yeewi mbooloo mi waxtaan wi ginnaaw tàkkusaan lay doon kon Serigne bi nee na mi ngi ciy séentu ñëpp nag di ñaan képp ku teew Daaru Salaam yàlla yàlla faj say aajo far say bakkaar wasalaamu aleykum aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yaraw ci mbooleem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a tey xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53.